ربنا ولك الحمد waaye yow jam bambala kooku da ngeen koy السلام عليكم ورحمة الله di fàttali sama bopp di fàttali mbooleem bopp daal bi yëpp yi xam ne bisu tey bi moom bisu mbégte la di bisu naqar lii fi jaay bi bu mu tax kenn def ma naqar ndax kàddu moom mbokk yi ñoo ànd ku ci rek ak sa yënguwaay ak sa tolluwaay noonu rek ngay doxee waaye dañuy war santal yàlla ci bu baax ci xëy na moom nag ku bëggee ko amee woon noonu mën naa nag moom mu nga waxee rek lu am naa yaakaar ni dañoo ko fii yaakaar naa ne di leen wax dara xam def nekkul nekk yaakaar naa doon ko incha allah da siy mën a baax a baax di leen sax génn ndax bisu tey jii suñu mbégte la ñun ñëpp nañu ko def mbégte rek nag moom nañ ci nangoo jaar baax a baax a baax te di ko ci biir xeewal bi ñu def ak ak ay leneen sant yàlla nag weesu te teg te mooy suñu ko tere baax te mooy ki ne ak tooy ak tooy baax ginnaaw loolu maa ngi déggal sama bopp di déggal mboolem mbokk daal nekk noonu booloon doon benn say bañ a tàggatoo bañ a xare seetaane suñu diggante nanu bëggante nanu soppante nanu wóolante yàlla rek kenn ku nekk jàppee moromam ni boppam ñu bañ a kenn bañ a jàppal moo gën ku nekk na nga def sa bopp nga def ko sa bopp waaw dañoo wax ne gën moom li tey yaa ngi jàpp ne yaa ko def nit na la war a nekkoo kii moo gën ak kooku lu mu xeebu xeebu xeebu ah. sa daal yow man tool yow nga jàpp ne kooku yow gën kooku da nga daal di xam na nag kooku yow moo la gën ak koo koo man koo ko lu mën a gën koo jàpp ne yaa ko gën rek jàpp ne kooku moo la gën suñu borom subhanahu wa taala dafa ah. minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul aaxira nit ñi ñaari xaaj lañ àdduna rek moo leen ñor mooy seen ñi ci desit àllaaxira ki nga xamante ne bii nag àdduna rek moo ko ñor suñu borom wax na bëgg kooku yi la ko ca mën a fekk. waaw koo jox ndigal dana jëfee ndigal rek ci ndigal ci tax ñett ndigal yi yëpp a daal daje. waaw ko suñu borom diggalee ne ko ren de ndax dem ba nekk mag. amoo doom dem ba màggat soo ko am benn doom rek nga gis ñun la ko nga am pas-pas mën koo daal di jëfandikoo ndigal loole loolu rëy loolu waaye doom it mu ñi mu ñi mu neexee ci wajur bu jigéen ni ko wajur bu jigéen di fonkee fi ñu koy teg mu ni ko suñu borom kat nee na sa doom kii naa ko rendi mooy mu mën am xolu nangoo jëfee ndigal loolee ne ko ah defal la su borom ndigal ndax sa xar mi kat rendi ko rek duñ la ko waxoon ñuy jàng nga def ak dégg yëpp bu ma naan doomu aadama koo xam ne sa doom la ñu ko nan nan koo jëfandikoo suñu borom waaye li ci gën a yéemeet mooy xale bi mu ne suñu borom nee naa ren moom it ci boppam am ndimbalu yàlla daal di nangu ne ko defal di la si sama sama borom digal si man noonee mu daal di tëdd jël paaka ba teg ca baat ba dawal suñu borom di rocc ko ci diggante bu gaaw gaaw gaaw ndax moom ci diggante kun la nekk ak feekul donc mel ne comme doomu aadama xam ne da ngay jëf suukar la la bëgg suñ ko moom daal nekk rek mu daal di nekk diggante boobu la ko nekkalee nag dindi xarma dindi dindi nit ka defa xarma muy mbir mu gaaw a yaa ngi na nga na la wóor na yii woowee suñu nga jeex kon li muy xumb xumb di bari rek rajo lépp nañu xam ne sunna su am solo la te yiwu baree bare ci nekk tiyaaba ju baree bare ci nekk nañ ko gën a fonk bu baax day koy bu baax a baax. jëm joo xam ne tey mu fekk gàllankoor na koy fekk waaye dafa déplacé lu tànk tànk bu egsi fii ku xam loolu ma toll nag tànk mu indi tuyaab bi ci ne ku xamoon ba tolloo fa dinaa di ko doxal ndax moom xam nga yaa ma njëriñ doomu kon loolu ñu ngi nga suñu kanam lool ñu bàyyi la xel ñaan suñu borom na mbàkke lii nga dox nii jàmm mujj te si kiwul nag boo demee ci wut ci mag bu ñu boobee juróom-ñaar fa di ñaan yàlla yonent bi la war a te si ne. nga kon loolu métti la woon kon loolu Mbàkke bu ñu ko jaanee tey bu yemee bés bu leen tey nañ ko def mbégte nga xam ne noonu du ñu mën a demee kon da suñu xel daal suñu yaakaar kon ne dooliku xam ne si àtte bu ma leen a dooli sama jëm bopp nga nekkat ma baari sama jëm bopp kon xam ne loolu du asar ba ilaa yow taalibe doo doon rek am yëg man sama kàddu yëpp nii la rek dama ne taalibe bu ne na am yëg doomu aadama daal bu amee yëg yàlla na mënal ko lépp yëg nag moo ko amee ñàkkoo dara ndax àdduna day ko nit rek noonu nit ki toog ci loxo bi ilaa yow mi dee na ngaa gaane àdduna nekk ci loxo boo delluwaat ci suñu borom ci loxo ngay yor kon nit mën da ngeen loxo bi ilaa yow mi dee kon ñu delluwaat taalibe yi dañ koy delluwaat suñu laxasaay xam nga ñu bokk suñu doo daala wona yim nden jiɗi nga xam ne tanke jàmm la tanke a wàcce sama kàddu ah sëñ wax rek mi na taxaw taxawaay boobee kon Mbàkke taxawaay bii allah kulli lépp lu ci am nag nañu xam ne xëy na ay jaar-jaar la waaye ay kiraama mënu ca ñàkk fee kon sa tolluwaay ndax bu fekkoon ne ay gobor wala ay fetel wala ay jaasi Euh, bu doon luy lor rek lu leen di lor ba ni Serigne Touba waxee su kon ku Serigne Touba di sa maam kon loolee wartaa nekk loo xam ne warta yéen kenn war mu jaaxal kon Mbàkke lool dañ ci wax alhamdulilahi rabbil alamin kon lool ak sant yàlla lañ koy de la mu ci woon boo déggee ñu naan alhamdulilah ñetti taaji cant muy sëñ Modou Tine mi wax na ko léegi xar mi nga xam ne moom la ñu Ismaïla mi nga xam ne moom la ñu waroon a def tabaski dafa ne alhamdulilahi rabbil alamin ndax mucc ga mu mucc Ismaayila ma nga xam ne moom la moom ne alhamdulilahi rabbil alamin xar ma nga xam ne moom la ñu mën wutt Ismaayila ne alhamdulilahi rabbil alamin waaye malaaka Jibril ma nga xam ne moo waroon a wuttale eh, Ismaayila ak xar mi war ko bu yéexoon loolee suñu borom bari kon kooku itam dañ alhamdulilahi rabbil alamin loola waral ñetti xaaji cant kon cant yooyu. nekk na cant yoo xam ne Mbàkke dañu koy def tey ci barab bi nga xam ne moom moo moo fi xew tey yoo xam ne la ko sabab warta jaaxal kenn de Mbàkke ak ah, ñun bokk ngeem ñun li nga xam ne moom lañ ñu nàmpal te ñu ci dañu gis ko suñu bët yi kon Mbàkke loolu dañuy gën a ñaan sa borom guddal sa fan ba li nga xam ne moom la maam Cheikh Anta naal ba teg la ci barab bii nga war na ko ci baari ndox bu ñëpp fu waay toll di ko gis takk-takk bi nag mooy ceeñaar ba mu nga nali bàyyi ndongo bu doon wax ne ceeñaar bu jolli ci lënd kenn du ko dëgg man diggal mooy daara jee nga wax ne moom moom lañu la ñu war a taxaw daara joojee léppay sabab yaa ngi ciy dox guddi yaa ngi ciy dox bëccëg ñi ci war a sëriñ wax na ko dañoo war a laxasuwaay feddiliwaat kóllëre feddiliwaat laxasaay ndax ñu mën a jàngali xale yi ba dëñë bi reer am nga la saytaane wala iblis génn ci réew mi ndax lii lépp waaye nag la Sëriñ Tuubaa di wax te xasidakum laa tastari dunya bi uxraa yaa fata man baa nuuran fii dunya fa sa yandamu boo jaayee sag leer jënd ko ak lëndëm ba te boobaa rëccu nga ciy jël kon nañu te dënn Sëriñ Tuubaa bañ koo yemale kenn te xam ne Sëriñ Tuubaa rek waaye beneen yoon woo mën a aw te wudut yoonu Sëriñ bi mën nañ leneen mën na ca kon Mbàkke li nga xam ne moom ngeen ñu nàmpatal liñ ca teg di ci dox nga di ko taxawee ci tundukaay ci jëw ci sa mbàkke loolu kaddu kaddu tànk yooyu yàlla na yàgg kon li nga na ma def ci baari ndoon nga def